jógee di def yi ci réew mi lu am am solo la amoon nañ benn teen fee bu mag teen xaw naa yàgg ndax war naa mat ay soixante quinze ans wala mu ëpp ko dafa dem ba yàgg ndox bi dafa dem ba góob dafa soppeeku daanaka amatul ñëwatul bu baax daal te ginnaaw amuñ forage lu mel teen moom yàgg nañ ko sàkku dafa am solo ndox bi daanaka it am ngeen sens teen daanaka am ngeen sens teen yi bët yëpp daanaka yëpp yu neex la te ndox bu neex moom dafa baax ci wér gu te it mën naa jur lu bari ndax tey jii bu toppee ginnaaw amagoo forage sun borom mën laa dimbali ba nga mën nga si def ay pompe nga dem di ba dem bay roose ndax daanaka boo demee loolu si dëkk yu bari kat ñoo rey boo wëree ñu bari ñu ngi koy ñu ngi loolu kii te loolu am solo kenn ku ne mën nga xëy am ci loo jàpp di leen sant bu baax te xam ne daal lu mënta ñàkk la moom suñu réew sax réew tax yu may sax doona ko war a man a am li ma leen ñaal mooy suñu borom mi nga xam ne mooy nangu te mooy moom rek moo man a fay te du jeexal boo leen suñu borom ne mu nangu leen te fay leen lu lu kawe seen jotlu te ka yom na noonu àddina ak ñu ngi leen sant leen gëm ñu daal wax de lot nañ ci fay leen lot nañ ci ñaanal leen ñaan ñaan dal mën nañ ko ndax julit loolu sañ ñaan la sañ suñu boom nag mooy nangu kon nag yàlla na ko nangu seen jëf ji yàlla na ko nangu te kawe ko seen jot lool voilà bisimilah rahmaani rahim wa wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain nous remercions le Tout-Puissant, Allah subhanahu et nous prions sur son noble prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Donc nous, nous voilà à Ker Mbaïsei. Donc Ker Mbaïsei est au niveau de la région de, de Louga. Donc l'équipe de Sakuyou Action pour l'espoir est là vers, euh, euh, vers 18h pour euh, procéder au lancement, superviser aussi les travaux du puits qui est dénommé Fradi Saïd Rabia Zohra. Donc le puits a été financé par l'association Au Pain et Sourire euh, Alhamdulillah, on a constaté euh, sur le terrain que les travaux avancent bien. On est vers euh, à, 11-12 mètres de profondeur, Alhamdulillah. Donc, donc, nous espérons que sous peu, Inch'Allah, on va revenir pour procéder à l'inauguration de ce puits. Et nous espérons, Inch'Allah, que durant euh, après la réalisation de ce pays. Donc ce sera le grand bonheur des populations. Et nous prions Allah SWT euh, de nous permettre d'achever ce travail et d'inscrire les bonnes actions euh, pour le compte des euh, généreux donateurs. Donc barakallahu fikum, alaikum wa